jollof Chicken dañ ko bëgg étendre un peu partout au Sénégal fi restaurant fast food amoon na fi mais ñun ñi waa Tiwaawan dañ leen di defal loo nga xam ni lu doy waar lay nekk indi leen fi benn Jolof Chicken bu rafet rafet te boo xoolee cadre bi nga xam ni am na différence ak yeneen Jolof Chicken yi parce que ñun fii lañ bokk ñun fii lañ bokk boo xoolee xalif bi ñu ngi koy ziar bu baax a baax au passage di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam bu wér a wér si Malick ndax ñun lu ñu xewle EDK lu ñu xewle moom mu taxaw si boo gestoo duñ ko gis wala muy yabal waa këram njabootam ñu ñëw teewee ci bis bi kon moom bu ñu ñëwee fii tey Tiwaawan balaa ñuy jël def dara jël kàddu dañ koy sant bu baax si di ko gërëm moo kilifa yëpp yi nekk ci dëkk bi li waral ñëw bi Tiwaawan nag lu simple la mooy li ma la wax rek étendre réseau bi nga xam ne Jolof ci gën day am un peu partout

Euh, euh, un grand défi économique parce que parce que c'était un domaine réservé les grands groupes des groupes étrangers ils ont fi daan alors il y a le défi duré am endurance ça veut dire que même c'est quelqu'un qui peut euh, qu'on peut faire confiance un exemple à suivre il y a un modèle économique soo demee ci tubaab bi ay projet yi ngay dégg ay Ford ak yooyu yëpp ay nit ñoo ko defoon muy dox ba léegi nit ñi war si jàng ay référence la dañ ko soxla te dafa manque si suñu réew mi. Bono Jolof Chicken c'est un ensemble parce que ñun bu ñu implanté wul dans une localité comme ni ñu koy waxee doomu dëkk ba la ñuy jël ñuy liggéey ci gox ba en dehors de ça li muy créer leneen mooy day créer emploi ci éleveur yi day créer benn valeur ajoutée ci éleveur yi ndax éleveur yi fi mu nekk ni ñun duñu jéggaani ginaar di ko jëlee Dakar di ko jëlee feneen fii nga xam ni fii la ñuy yaree ginaar yi dañuy jël éleveur yëpp ñu am ak ñun contrat ñu ñuy jaay seen ginaar kon loolu création de richesse la te ñoom dinañ leen créer loo nga xam ni maanaam ñoom dinañ ci gis seen bopp du yam rek ci ñun ni emploi yi ñuy créer mais dañuy créer ay entrepreneurs yoo nga xam ni vraiment dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax dinañ mën a profiter ci société Jolof ci bi